nañu xam tey lan moo la jëlee ci biir APR. waaw mooy li ma wax Pape xam nga euh, bu fekkee ni euh, man bi may sos euh, bi ñuy sos appaire bi may engagé wu di jàppale le président Macky Sall en fait dama amoon yéene ci Sénégal parce que dama gëm ni nag Sénégal ñun ñoo ko war a mën a defar te ma am yéene ci réew mi jàpp ne man war naa mën a apporter sama pierre à l'édifice maanaam war naa mën a indi sama wàll ci tabaxu réew mi te ma amoon ci yaakaar ci président la République bi mu faloo nag ba tey ji may wax ak yow 2023. président Macky Sall toogul ma toog. te li ci gën a yéeme euh, bi ñuy waaj élection présidentielle 2019 yi. président Macky Sall bi muy recevoir commune Médina. imaginal ak li ma la wax ak fi ñu jaar te Médina ma fàttali la ni. képp ku fi doon responsable. li taxoon sax ngay doon responsable Médina ci APR mooy parti bi dafa ne woon ku bëgg a doon responsable sa gox da ngay monter comité cent personnes. Mm-hmm. ñu ah ñu yónni commissaire valider ko pour nga nekk responsable am na ci ñoo xam ne nag tey jii ñu ngi cëppi cëppi di woo responsable mais du ñu responsable parce que amuñu comité ñu suñoo am comité. man maay ñaareelu nit bi créé comité APR fii ci Médina. Ndeye Khady Diaw Khady Macky moo njëkk créé comité. dimanche bi ci topp parce que Ndeye Khady li tax mu njëkk créé sax dama ko ne Ndeye Khady man de pare naa dama bëgg a woo Ibrahima Camara moo doon suñu commissaire bu parcelle pour mu ñëw montel ma sama comité mu ne ma non Moustapha dimbali ma rek may ma man tuuti moo ma dese dimbali ma rek may ma ma njëkk monté après yow nga monté ma ne ko ah man pare naa de boo monté dimanche bi di ñëw ma man dinaa monté mu ne ma waa garaawul man dinaa fexe Ibrahima Camara ñëw te képp ku fi monté comité man maa woo commissaire politique bi Ibrahima Camara mu ñëw monté la comité maay fay taxi bi muy jël buy ñibbi maa koy fayal taxi képp ku fi am comité nag à la wax sans exception Medina ba Medina daj à l'époque de 2009 à donc kon xam nga ni am na mérite boo xam ne am naa ko ci parti bi loolu yëpp nag bu ñu ko defee président Macky Sall doon président amul dara loo xam ne cër la wala considération la boo xam ne am na ko ci suñu personne ah comme ni ma la ko waxee sànq ci njëlbeenu wax ji. olof dafa ne ku lamb yaa tey daagul fañ la nobee ndax man dama jàpp ni amul kenn koo xam ne tey jii mi Médina président war na laa mën a jox ndomba tànk mbaa mu delloo la njëkkal mbaa mu jox la poste de responsabilité nga gën ma cee yeey man amul. te gisuma fii koo xam ne ëpp na ma yéene ëpp na ma pas-pas ci réew mi te gën na maa bëgg réew mi tamit gisuma ko te man jàpp naa ni war naa mën a def dara ci Sénégal parce que am naa yéene bi am naa xam-xam bi euh, te jàpp naa ni tamit sénégalais laa war na mën a nekk donc bi ma toogee 2012 ba 2022. dix ans gisuma dara loo xam ni consideration la bu jëm ci man te ñi nga xam ni président daf leen fi nommé. te léegi yaa ngi doon yëngu ci biir parti bi. maa ngi doon ci yëngu ci mais bien sûr moom laa lay wax. dem na la APR Médina amul lu mu def fii loo xam ne su ma la ko dugg ci bu baax amul. amul APR Médina euh, APR Médina dama cay daj lu ne pap APR Médina bu ñu ko doon miiras tey defe naa ni su ma séddoo keneen du seddu kon xeexante bi ñu doon li indi loolu a expliquer li indi loolu mooy. Mhm. ñi nga xam ni bi ñu président Macky Sall faloo daf leen jox ay ndomba tànk ci cër ci Medina. Mhm. Euh, gars yi dañoo commencé defi yëf xam nga rek sénégalais maanaam ak politicien dañu xaw a fiir tuuti. Mhm. parce que ki ñi fi nekkoon xam nga ku ci mel ni Seydou dama koy wax su ma mag la nag su ma grand la mais man dama naan APR Medina bu yàqu moom moo ko yàq. Ah, grand bi moo ko yàq lu tax mu yàq ko mooy moom xam nañu fi nekkoon bi ñu lancé parti bi moom même bu fekkee ne parce que Seydou benn jour dama ko dégg mu wax lu yéeme. imaginez Pape ma dégg Seydou Gueye moom dana fexe ba Medina kenn du fi am dara ndax moom ku fi am dara ci kawam nga jëm mais imaginez Seydou bu demee ba wax loolu te Pape man ma gëm ni pour man politique. pour man c'est un de générosité. pour man politique générosité la. te moom bu fi nekkee nekk ministre. xam ne ay rakkam a ngi fi bu leen jéemoon a utal dara kon jàpp naa ni bu moom la ñuy jàppale te bu boobaa liggéey bi day gën a yomb ci moom boo gisee lu tax parti bi demee nii ci Médina et ma fàttali leen ni bi ñuy lancé bi ñuy soog a sos parti bi élection présidentielle coalition Macky moo génn premier fii à Médina on a gagné tous les centres tous les bureaux de vote ici Médina ci kaw coalition Sopi ci kaw coalition Benno Tanor ci kaw coalition Benno à la Médina à la Médina au premier tour je prends tout le monde à témoin les résultats sont là je pense bien su ma juumalee tous les procès verbaux maa ngi yore tous les résultats te ma fàttali ne ni ba ñuy dem ci élection yooyu noonu la coalition Macky 2012 250 000 francs CFA lañ ñu jox comme budget de campagne 250 000 ma ma jël lépp lu ma amoon lu ma jotoon a denc ak lépp def ko ci Pape maanaam APR man damaa ne damaa miiras li ma gën a bokk na ci li ma gën a naxari mooy Macky Sall même bu ma defalul dara sax walaay bu ma remboursé woon li ma def ci APR. Mhm. waaw kon rek man sama xol dana sedd. ci fukki at yooyu est-ce que déggante nga président wala.